voilà may ma wax ba pare nga kii ma exactement may ma wax ba pare xoolal wuy ma waa na wuy ma boo waxee dara dañ la koy delloo yow dañ ñuy delloo mais oui voilà monsieur le fii débat la mu nekk sénégalais ñoo ñu déglu mënoo wax ni conseil constitutionnel euh, urgence bi lañ nekk dañ la ne urgence normalement conseil constitutionnel am na un mois d'accord mais bu dee urgence la mooy huit jours mais wuy ma léegi wuy ma par principe wuy ma rek ah. wuy ma comme comme il a la parole te nee na bu ah, ko wuy ma wuy ma non non parce que non ça peut lui le fil de ses idées mais concédons-lui ça et puis wuy ma nga noté soo noté ba pare wuy ma tu le rectifies après bañuñu ko léegi tu peux reprendre. xam nga xam nga man lu may wax on procède comme ça non non non moi je veux je veux man nekkuma fii pour que ñu may concéder quoi que ce soit. non non mais on me laisse kii déggoo ma ne la man. monsieur le ministre Charles Fayek ñun ñëpp ay sénégalais lañu nekkuma fi pour ñu may ñu may concéder quoi que ce soit je suis là depuis ans di wax fukki at émission bi mooy émission bi ñu gën a seetaan Sénégal laissez-moi m'exprimer comme je veux comme je l'entends ces trucs de sous-estimation là naan ay nit ay ko bugguma ñu concerné ma dara dara plus de cinquante ans la am

ce n'est pas possible j'ai pas besoin de DER. laissez-moi parler. mais mais mais mais vraiment. mais nag monsieur le pas possible. président président maanaam sama wax rek. président non président non pardon nag. vraiment yàlla ne je dagg nañ la benn yoon. après nag nga continuer kii def na speech bu yàgg ken dagg ko. Euh, élément def bu yàgg kenn dagg ko ministre def bu yàgg kenn dagg ko yow benn yoon lañ incrusté mais réellement depuis que Bouba mi ngi jël parole bi mais xanaa ñu ngi ci cinquième wala sixième fois ah, réellement nag day perdre fii lam aussi wax na dëgg incrusté bi invectivé ñi nii directement baax na mais kële dafay ñu arrêté mais monsieur le ministre invective nag amul xalaat ba mu daaneel de Bouba non non parce que lan moo ma gënoon neex mhm. man j'ai une forte personnalité mhm. j'aime pas man duma sëgg dafa damay respecté ñëpp mais le ce respect là dañ ma koy delloo nekkuma fii pour ñu naan ma nañ ko kii ak ay affaires yooyu non yooyu la damay wax voilà faut que les gens ils arrêtent <laughs> ñi nekk ci kër yi ñooy jugé c'est pas ñi nekk ci table ñooy jugé sénégalais yi ñuy seetaan xam nañ bu baax ndax li may wax dëgg loolu du dëgg dama ne la dialogue amul ci dëkk bi maa ko wax waa jarul doon table waaw mais non maa ko wax maa ne dialogue amul fii musu fee am ay dóor la ay prétexte la pour régler des problèmes politiques maa ko wax un président qui par dans 40 jours on n'a pas besoin de dialoguer avec lui on a besoin qu'il organise une élection présidentielle lan la ñu bëgg qu'est-ce qu'on veut on peut pas vouloir mënuñu bëgg dara ak contraire am conseil constitutionnel la ñu wax jusqu'à preuve du contraire ils n'ont pas laajuñu pour ñu pour ñu reprendre processus bi xam nga nit yi dañu bëgg les intellectuels là da ngeen bëgg woy c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple décision dem élection présidentielle c'est une décision unipersonnelle sax mais bu dee danga am parti ci ginnaaw